boo jógee ci accident yooyu maa ngi koy wax sànq dafa am benn livre muy bii boo xam ne journaliste bii di Cheikh Yérim sekk moom moo ko bind c'est pas son premier livre te man euh, wax naa ko sànq livre yu Cheikh Yérim Seck je crois que su ma newul yëpp laa liir it yi ci ëpp boog liir naa ko pour mën naa wax sax ne yëpp liir naa ko et je le dis encore une fois Cheikh Yérim Seck bokk na ci journaliste yi nga xam ne dama leen respecte lool parce que dama xam Cheikh Yérim Seck au la du journaliste parce que man ay rakkam muy ñoom Sidi Diop euh, ñoom euh, Sidi Xoyo ñoom Habib ñoom laa bokkaloon benn classe te Alassane Cheikh Yérim bii ñun bi ñuy nekk collège moom mu nekk lycée Malick Sall bu Louga dafa bokkoon ci suñu ay référence ñoo xam ne wax naa ko ci benn émission su souvent les élèves voulaient ressembler à Cheikh Yérim muy Cheikh Yérim muy ku mel mu Mounirou Sy professeur euh, ku mel ne Ousmane Thiongaan mi ngi actuel ba conseiller à la présidence de la République c'est des gens yoo xam ni Alassane dañu mënoon a jàng mën a jàng d'ailleurs ñoo daan représenter le lycée Malick Sall ci Jeunes en herbe et soo leen daan seetaan télé yow nga nekk collège tu voulais exactement faire comme eux cette relation là euh, man dama ko am ak Cheikh Yérim bi mu bi mu nekkee Jeune Afrique également fekk man ma nekk euh, journal Le Populaire c'est quelqu'un boo xam ne dama doon échanger ak moom lu bëree bëri mu lay encourager ci yu bëri di la tegtal ci ci liggéey bi ñuy def et et tout quoi donc pour vous dire que ni euh, au-delà du fait que dama jàpp ne su bindee livre quel que soit lu da ci livre dañ ko war a xam li ci nekk ku ko bëgg a critiquer nga critiquer ko sur li mu bind et non sur de la même manière. ni ma ko waxee woon ci livre am Alassane Sall mais livre bi Alassane li tax ma bëgg cee taxaw ci lu gàtt du ma ci guddal parce que dama commencé lire pareegu ma xëy na su ma ko paree dinaa ci ñëwaat daf ci am loo xam ne dama ko cee jàng te ma gis tey ci suba <laughs> ci réseaux sociaux yi euh, ñu bari di ko partagé commentaire yu baree bari am na ci te man leer na ma ne billaahi la wax maa ngi koy waat leer na ma ne am na ay journalistes sénégalais yoo xam ne tey suñu liiree passage yu boobu danañ danañ reetaan te naa la wax passage bi léegi Alassane Euh, dafa am euh, ci livre bi fu Cheikh Yérim Seck waxee ne élection présidentielle deux mille dix neuf heureusement heureusement d' ailleurs Cheikh Yérim Seck conditionnel lay utiliser ci wax ji conditionnel te journaliste bu dee bind wax conditionnel maanaam aurait serait nangam ak nangam mooy li muy bind moom leeru ko amu ci certitude le conditionnel amoo ci certitude parce que sooy sooy parce que conditionnel c' est pas affirmation en fait. mais dafa wax ne aurait quand je lis aurait wala il écrit prétendument man su ma liiree yooyu ma première réaction mooy kii li muy wax amu ci certitude à cent pour cent histoire la bu ñu ko raconté xëy na sax vérifié na ko mais en tout cas wóoru mu ne élection présidentielle 2019 jàppal mbaax la wax mu ne 2019 moom Cheikh Yérim Seck mu ne dafa am benn waay ak bu ñu fekk fii ci corniche ouest ak benn jigéen ci benn oto benn góor ak benn jigéen ci benn oto nee na alkaati yi ñoo leen fa fekk encore une fois moom conditionnel la ko waxee ça veut que ni euh, li muy wax amu ci certitude parce que man xaw xëy na maa xamul mais quand su may lire texte journaliste gis fa conditionnel rek damay jàpp ni kii li muy wax leeru parce que su ko leeroon day day da koy affirmer mais du ci def conditionnel mais Cheikh Yérim heureusement pour Cheikh Yérim conditionnel te conditionnel boobu. ci livre bu nii pour man dama jàpp ne warul parce que da ngay wax ci vie privée wu doomu aadama boo xam ne dafa am ay famem am ay nitam am ñu ko bëgg sooy wax ci moom dafa war a nekk loo xam ne da nga ko vérifier ba mu leer la naññ et non ngay utiliser un conditionnel muy benn mais dama wax ci biir wax ji mu ne Fatou mu ne 2019 bi ñu nekkee élection présidentielle dafa am benn alkaati dañ doon def patrouille fekk benn xale bu benn jigéen ak benn góor ci benn oto ci ci corniche bi nee na bañ leen fa fekkee ni nga xamee ne position yi ñu nekkee daal xaw na doy waar daal noonu la ko waxee nee na bi mu ko defee alkaati yooyu informé ministre de l' intérieur yi Cheikh Yérim mooy bind nee na ministre de l' wax ko président Macky Sall ndax ki ñu fa fekk ak xale bu jigéen bi Cheikh Yérim nee na Ousmane Sonko la yaa ngi nee bi ñu waxee loolu président Macky Sall <laughs> Sénégal parfois da ngay da ngay da ngay da ngay muus ba far dof ñu ne Sénégal ñu ne bi ñu waxee loolu président Macky Sall président Macky Sall ne non nañ ko bàyyi bu wax ji jëm kaw parce que moom adversaire politique am daf koy xeex ci wàllu politique sur le terrain et non sur des affaires de mœurs nañ bu ci kenn wax. parce que ñoom am nañ bilan boo xam ne mën nañ ko défendre pour élire leen et non di yàq parce que nee am na ñu proposé président Macky Sall ne ko nañ génn histoire bi yàq Ousmane Sonko comme sa il est sûr de gagner la présidentielle d' abord problème bu ma njëkk a ma bëgg a souligner ko mooy deux mille dix neuf élection présidentielle man gisuma juróomi Sénégalais yoo xam ne soo laajoon ñett yi dañ naan usman Ousmane Sonko mën na poser problème Macky Sall deux mille dix neuf juróomi Sénégalais yoo xam ne soo laajoon ñett dañ naan Ousmane Sonko mën na poser problème Macky gisuma ko woon Macky Sall dañ doon wax ne xëy na Idrissa Seck mais pas Ousmane Sonko en deux on est en deux mille dix neuf mais wax ji foofu amul solo. li am solo alsaan mooy gis nga li Cheikh Yérim bind noonu billaahi wallaahi am na ay journaliste sénégalais yoo xam ne buñ ko déggee fi mu nekk nii dañuy reetaan xam nga lu tax alsaan histoire bi ma lay raconté dañ ne 2012 moo tax journaliste sénégalais yi ñu jëriñ jukkeel lañ parce que lii Cheikh Yérim bind nga xam ne man jàpp naa ne rumeur la bu du woon rumeur du wax conditionnel lii Cheikh Yérim bind dama ne la histoire bi histoire bi 2012 2012 boobu Ousmane Sonko ci politique. 2012 élection présidentielle 2012 billaahi du ay caaxaan élection présidentielle te su ma neexoon léegi cité ay journalistes yoo xam ne soo leen woowoon léegi laaj leen ñi ne Moustapha wax na dëgg 2012 la ñu wax ne président ab Ablaye Wade boobu Ousmane Ngom mooy ministre de l' intérieur élection présidentielle 2012 lañ ne dafa am benn candidat ci candidat yi xam ne ñoo bokkoon ci élection bi candidat bu am doole nag du ma tudd tur parce que comme. Euh, à l'époque journalistes yi bari nañu ko yëgoon mais dañu jàppoon ne c'est une simple rumeur jëluñu ci wax histoire bi mat na dix ans maintenant ma ci ñëwaat naan diw la woon ak diw la woon diw moom xëy na tey nekk na leneen mais dañ 2012 laa la wax Alassane déglu baax na la wax billaahi du ay caaxaan 2012 lañ ne président euh, dañ ne ay policiers ñoo doon def patrouille fii ci corniche corniche ouest Cheikh Yérim neen corniche ouest ñu ne ay encore une fois xam nga 2019 la wax 2012 Ousmane Sonko il est entré en politique en 2014 su ma juumul 2012 Ousmane Sonko politiquement il n'existe pas kenn xamu ko xamoon ko man xaw ma woon Ousmane Sonko donc 2012 lañ ne président Ablaye Wade moo doon président au Sénégal jëm élection présidentielle mu ne ay alkaati ñoo doon def patrouille fii ci Corniche Ouest fekk fa benn candidat ci candidat yi waroon a joŋante ak président Macky Sall su ma ak astafurla ak bi nee na bi ñu ko fa fekkee ñu jàpp wax ci informé Ousmane Ngom parce que moo doon ministre de l'intérieur à l'époque bi ñu ko waxee Ousmane gom Ousmane Ngom informé le président Ablaye ab Ablaye Wade laa la wax bi ñu informé le président Ablaye Wade mu ne nañu teg histoire boobu ci suuf parce que moom Ablaye Wade rus na jëm ci élection présidentielle ñu naan adversaire am dañ koy taqal wala dañ koy jàpp ci affaire mœurs lii 2012 laa la wax de ba 2022 journalistes yi nga xam ne ils sont informés ci Sénégal yëpp xam nañ histoire dégg nga histoire boobu man mii dégg naa ko te su ma neexoon léegi lim ay journalistes yoo xam ne déggoo nañ ko fii ci Walfadjri gii soo laajoon bareetu ñoo xam ne man Moustapha Diop wax naa leen lu mel noonu fii mais booba journalistes sénégalais ils sont tellement responsables que dañ ne lii rumeur la rek xëy na waa PDS ñoo ko créé pour yàq deru un adversaire donc jërul di bind jërul di wax kenn mosu ko ŋaan ku ko dégg da ko dégg nii dans certains cercles de Dakar donc bu ñu demee ba deux mille vingt deux mu lire ci livre lu euh, mu tudd Cheikh Yérim Seck la même histoire nga xam ne dañoo dindi turu candidat bi ma lay wax def fa turu Ousmane Sonko dindi turu Ablaye Wade def fa turu Macky Sall dindi turu Ousmane Ngom de l' dama naan y' a problème y' problème cette histoire là ma ne la man ba ma koy dégg boobu Ousmane Sonko duggagul ci politique. te sax à l'époque dañ doon raconté que ni bi ñu jàppee waa ji am na journaliste boo xam ne ñëw na fekke ko ne woon da koy bind gars yi yéeg kaw yéeg suuf yéeg kaw yéeg suuf ba mu bàyyi ko journaliste boo xam ne Alsaan suñu génnee ma wax la turam fekke na ko donc moo tax ma ne la histoire bi mu bind ci Ousmane Sonko gis naa mu naqari trop waa Pastef fii ku nekk di ci kaas mais dama ne la am na journaliste Sénégal yoo xam ne bu ñu ko déggee dañuy reetaan. parce que lii histoire bi muy muy raconté bi muy biñ koy dégg ñun Ousmane Sonko duggul ci politique à moins que mu xew 2012 2019 exactement exactement la même histoire amaat exactement ci même corniche bi ci même oto bi góor ak jigéen police ministre de l' président de la république exact billaahi billaahi caa du ay caaxaan xam nga man du may def chronique di waat nag mais lii dama ne bi ma koy dégg booba est-ce boobu man def naa est-ce que du man je suis venu à Walf en cinq mais boobu boobu man j'étais même pas à la télé j'étais même pas la télé boobu j'étais à Walf Grand Place te kiñ ci doon tudd ku ma xam bu baax la koo xam ne dañu wax ne journaliste la boo xam ne naroon na koo bind te bu ma la waxoon candidat boobu léegi mais attends il faut arrêter quoi moo tax bu ma liiree dama gis rek man daw xool page bi j'ai lu l'histoire ma ne mais attends il faut arrêter bi man bi ma koy dégg booba Ousmane Sonko ci politique encore une fois comme Cheikh Yérim conditionnel la utiliser man du ma ne am na du ma ne amul mais dama bëgg mu leer ci bopp Sénégalais yi kenn ne histoire bii ñuy raconter fii ne 2019 la xew et que Ousmane Sonko la concerné ay policiers fekk ko ci corniche bi ak xale bu jigéen dem wax ko ministre de l' intérieur ministre de l' wax ko président Macky Sall président Macky Sall ne nañ ko bàyyi parce que nangam ak nangam ak nangam dama ne la faatu avant. Ousmane Sonko di dugg ci politique la même histoire nee nañ Corniche Ouest la xewe ay policiers jàpp un à la présidentielle wax ko pré Ousmane Ngom mi ne ko bis de l'intérieur Ousmane Ngom wax ko Ablaye Wade Ablaye Wade ne nañ ko bàyyi parce que affaire mœurs moom du du ko xeex ak candidat du ko xeex ak adversaire am la même histoire la même qu'est-ce qui se passe dans ce pays qu'est-ce qui se passe te loolu gis nga man wax naa ko mais di nga dégg yeneen journaliste que du ma yaa man je sais pas mais am na yoo xam ne su la woowoon fii léegi ñu ñëw ñu wax la la Moustapha raconté na ma lii te boobu man xaw ma ne war Cheikh Yérim dina ci bind mais li ma jaaxal mooy su ma jëlee ñaari histoire bi nga xam ne man amoon naa ko yeneen journaliste amoon ko te ñun à l'époque ñu jàppoon ne c'est de simple rumeur moo tax gisoo benn journaliste bind ko soo liiree tey li Cheikh Yérim Seck bind dangay dindi turu kañ doon wax à l'époque te bëgguma ko tudd def ci turu Ousmane Sonko dindi 2012 def 2019 dindi Ousmane Ngom def actuel ministre de l'intérieur dindi Macky Sall def Abdoulaye Wade muy même histoire muy même histoire ça pose problème. sax pose problème te wax naa ko benn waay ji suba ma ne ko su fekkoon ne du histoire boo xam ne man yëgoon naa ko avant xam tur ju ñu doon tudd yëpp du ma ci taxaw di ci wax parce que bëgguma di di di di di di di di di weddeeg di dugg ci yenn yi parce que les principaux concernés xëy na ñoom mën nañ ko weddi seen bopp mais lii c'est un témoignage que je devais faire devant l'histoire parce que alsal am na yoo xam ne soo ko déggee nga dégg ko pendant des années nga ñëw ba deux mille vingt deux ñu raconter la même histoire exactement la même y lee que les noms des acteurs qui changent mais soo amee tuuti ngor di nga wax ne histoire bi déggoon naa ko et ba mu ko déggee c' est pas les mêmes noms acteurs yi ñuy tudd du woon les mêmes acteurs parce que fii Ousmane so Ousmane Ngom astafurlah Cheikh Yérim Seck su ma ko liiree tuddul turu ministre de l' intérieur mais à l' dañ ne woon Ousmane Ngom moo doon ministre de l' intérieur à dañ ne woon usmaan Ngom moo doon ministre de l'intérieur man nag damay wax lu leer mooy histoire bu 2012 ba dara leeru ma ne am na dara leeru ma ci te ñàkk maa leer googu ñàkk leer sama ay confrères moo tax ñu bari ñu ko woon parce que jàppoon ne rumeur la. parce que c'est tellement gros un candidat à la présidentielle ngay dem ci corniche bi di toog ak ay xale yu jigéen ci oto te hôtel yi ne fi kër yi ne fu ne ne fi ngay toog ak xale bu jigéen ci biir oto ban la fay jàpp di ko wax ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur da wax ko Ablaye Wade Ablaye Wade ne non nañ ko bàyyi parce que bon voilà je veux pas histoire mœurs affaire yooyu 2012 à l'époque on disait que lii c'est de rumeurs il faut être sérieux on l'a pas fait Cheikh Yérim Seck la même histoire mu bind ko ci livre am man Moustapha Diop dama naan y' a problème y' a problème te leer na ma ne boo demee pale présidentiel wala nga dem ci yenn parti politique yi histoire bi mën nañ la ko nettali parce que je sais pas moi lu siiw la wut dans certains milieux les journalistes sont boo demee ci rédaction ils sont au courant 2012 2012. et d' ailleurs man am na benn jour benn chronique petit déj ma doon def may dem bu jàng ma naan Ablaye Wade garmi la histoire bii laa doon def référence mais ma ko woon a wax parce que man bëgguma di wax loo xam ne dama ko basé rek sur de simples rumeurs su ëllëgee ñu jaar fële weddi ko te à l' époque et jusqu'à fi may waxee géew yow nii amul kenn koo xam ne am nga preuve que ni liñ doon waxal candidat boobu am na liñ ko doon waxal à l' xanaa ñi ko fekkee. su fekkee am nañu ko fekkee mais man ba léegi on on m'a pas la preuve que ne loolu am na tey la même histoire la même histoire la ñuy raconté en 2019 noowu noowu acteurs yi rek ñoo changé et pour man ça c'est un c'est un vrai problème c'est un vrai, problème encore que man su ma doon bind ci loolu dinaa ci enquêter ba mu leer ma leer goo xam ne duma ci utiliser conditionnel duma ci utiliser conditionnel te ndax boo ci utiliser euh, conditionnel boo ci utiliser conditionnel da ngay poser un sérieux problème de crédibilité alors fan laa ko liire woon mu ne on peut dire que le président de la République n'a jamais voulu attaquer son plus virulent opposant en bas de la ceinture donc c'est Ousmane Sonko deux événements permettent de le prouver à la veille de l'élection présidentielle de février 2019 le ministre de l'Intérieur avait été saisi par des agents de police en patrouille qui lui avaient signifié avoir trouvé à l'intérieur d'un véhicule garé dans un endroit suspect de la Corniche Ouest, Ousmane Sonko Ousmane une femme de nationalité gambienne dans une position délicate. Lorsque cette information a été, euh, a été euh, euh, euh remontée de la qualité de la personne concernés inst instruction a été donnée de laisser les deux personnes libres de leur mouvement lorsque au cours de la préparation de la campagne un ministre très agité a proposé cet épisode de la corniche soit évoqué pour décrédibiliser le candidat de Pastef Macky Sall l'a stoppé net Macky Sall mooy wax mu ne il ne faut pas glisser sur ce terrain aller convaincre les militants et appeler à voter pour la victoire montrer que nous euh, notre projet est meilleur que le sien et que nous avons fait un bilan qui confiance quelques années plus tard lorsqu'une affaire de mœurs impliquant prétendument prétendument ça veut dire que ni présumément il y a rien de sûr mooy conditionnel bi ma doon wax sànq et une femme résidant au Maroc a été rapportée en haut lieu Macky Sall a réagi c'est sa vie privée ça le regarde en 2019 mais histoire bii moom bu corniche bi man dégg naa ko bien avant ñu koy bind ci libre moo tax lu jar def attention la encore une fois et je dis que ces genres de de d'histoire là soo nekkee dans la presse sénégalaise dangay xam ne lu baree baree bëri nga ciy dégg lu bëree bëree bëri nga ciy dégg on te raconte tellement de choses même concernant le président de la république mas naa wax fii ne liy différence entre journalistes yi ak liveurs yi ngay gis ci seet di seetaan ci télé bi ci ci ci euh, réseaux sociaux yi mooy journaliste bi yenn saa yi mu jot une information boo xam ne ñaar mooy am soit mu vérifier ko ba mu leer ko mu bind ko te parfois nga vérifier dara ba mu leer la doo ko bind parce que ça implique d'autres trucs il y a beaucoup d'informations que les gens n'écrivent pas wala nga xool ko gëm nga yow mais leeru la nga utiliser conditionnel mooy li ma doon wax sànq nga utiliser conditionnel wala boo nga xool ko leeru la nga bàyyi teg fële mais cette histoire là xëy na Cheikh Yérim moom mi ko bind dina ñëwaat apporter les preuves de ce qu'il a écrit mais man li may wax te mu leer ma man Moustapha Diop mooy bien avant 2019 boobu Ablaye Wade mooy président de la République du Sénégal la même rumeur wër na ci suñu rédaction yi wër na également ci fi nga xam ne mooy euh, yenn milliers ci Dakar certains milliers de Dakar te booba li ñu doon wax mooy dafa am benn kandidaa à la présidentielle de 2012 boo xam ne. Abdoulaye Wade la ñu ñëw ne dañ koo dañ koo fekk ci corniche bi moo jigéen ñu wax ko ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur informé Abdoulaye Wade mu ne nañ ko teg ci suuf la même histoire je te le la même tey moo ne ci moo ne ci livre bi on verra avec le développement parce que comme dafa bind teg ko ci euh, nu ñu koy waxee sax ci ci ci place publique bi ba wax ba pare wax ne bu génnee argu amul benn argument bu ñu ko mën a tegal bu weer li muy wax les gens vont l'attaquer sur sa vie privée man je n'attaque Cheikh Yérim ni ça sur sa vie privée ni si autre chose je ne l'attaque pas sama yoon nekk je ne l'attaque pas du tout du tout mais sama devoir journaliste bi ma doon mooy wax ne histoire bi moom du lu bees lu ma lu ma xamoon la man te bari na ñeneen ñoo xam ne bëgguma leen tooñ mais suma ma leen limoon fii ñu ne la lu ñu xamoon la